you asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha nag tey dafa génn ci mbedd bi bëgg a ñi nga xamante ne ñoo yëngu si wàllum business profile seen programme yi looy yëngu la nag dugg naa fii si Seka Trading Group ñoom nag dañuy yëngu si wàllum jaay bagage damay bàyyi ku ma taxawal rek mu introduce boppam wax ñu fii mooy fan ak si lan la ñuy yëngu asalaamaaleykum nuyu naa la. waaleykum salaam man maa ngi tudd Aïssatou Thiaw maa ngi liggéey fii si Seka Trading Group. macha allah Aïssatou Thiaw man nag kon nag suma yaay la suma toomaa la parce que man suma yaay Thiaw la sant suma euh, man euh, Aïcha laa tudda Aïssatou euh, dalal ak jàmm fii si Sahel Network TV ñun nag dañ ñëw seen shop bi tey bugg a waxtaan ak yéen ci wàllum business profile léegi da ñooy wax yéen nga xamante ne yéen a waaye yéen a nekk waa Seka Trading Group nga wax ñu lan ngeen di yëngu lan ngeen nekk di jaay ak yu mel noonu daal yaa ma gën a noo. <laughs> waaw baax na ñun Seka Trading Euh, ñu ngi yëngu si wàllum jaay euh, building materials ak plombian bagage yi nii si yooyu lañ gën a lifin yëngu daal yaa dañ dee jaay ay peinture ay bagage yu bari daal pour sampa kër ak yooyu noonu wala yéen naka nekk di dundee ak customers yi nga xamante ne ñu ngi ñëw di jënda ak covid 19 bi nga xamante ne tamit nit ñaa ngi si sonn tara macha allah ah loolu moom yombut yombut de ndax feebar bi dafa euh, dafa distract lu bari si àdduna bi ñëpp a ko yëg especially ñun business mm-hmm. euh, ñun ñun ñu nekk di def business si wàllum business bi yëg nañ ko torop fii nii euh, customers yi duñ duñ dee ñëw comme time boobu nuñ daa ñëwee woon balaa feebar bi fu mu nekk dañ gën a wàññeeku so da ngaa gis ne ba pare lu bu gaay defee euh, public state of emergency bi yaaxana na lu bari daal because comme da gis ne time boobu noonu dañ daan jaay ba ay um, after timis yooyu dañ fi dee nekka waaye léegi moom six rek dañoo tëj bi te xam nga time boobu noonu sax ay boori six ba timis yooyu noonu sax customer si dañ dee pour jënda yaa so wàññi lu bari daal si business bi. loolu moom nekk na lu am solo parce que soo ko seetee tamit surtout liggéeykat yu bëri ñoo xamante ñu ngi yëngu si wàllum building guddi bi lañ dee gën a jëndal matériel si nga xam ne dañoo teel a jóg ñu dem jënd loolu loolu tamit bokk na si challenge si nga xamante ne loolu ngeen nekk di dund léegi yéen seen place bi fan la nekk si Westfield ak ku leen bugg a jot naka la muy def. Ah, suñu kër Johnson soo ñëwee ba si biir ba nga passé lifin bi nu mu tudd essentiel bi yaa atlas soo ko passé rek ñun ñu ngi si côté ñu ngi si weti atlas bi so ñun ñu ngi tudd Seka Trading Group. so what are de contacts number yoo xamante ne yooyu ngeen naa joxe su ko defee ñu mun ko use. ok um, képp koo xam ne bëgg nañuy jot rek mën nañu call si 217 0533. 2170533 wala 7872422 uh, inshallah léegi yow ak kan ak kan yéen a nekk di liggéey fii nii yéen wakana kan kese ngeen wala yéen fina, góor ak jigéen ñëpp a nekk di liggéey fii fii nag ñun ñaari jigéen ñoo fi nekk ñun ñaari jigéen ñi neka nekk yi wante lu si lu si ëpp doole yëpp ay góor leen waaw waaye liggéey ak góor métti na wala métti woo non non <laughs> liggéey ak góor di best ever because man liggéey na ak ay jigéen ba den nu ma nu ma mel ak góor yi melu ma woon noonu ak jigéen yi liggéeyaa góor daal fanaa moo moo gën si man daan liggéeyaa ji. waaye dafa mel ni Aïcha yi ñoom ñëpp xariti góor ñi lañ am parce que man mi ku ma fekk maa ngi toog di waxtaan ak góor yi da ngaa foog ne comme uh, they are part of my family kon loolu dafa nekk lu am solo waaye tamit dafa baax tamit liggéeykaay soo fa nekkee you people are all together and thank you so much Aïcha so what are your final words nga xamante ne ñu ngi laa seetaan lan ngeen laa tàggoo. waa euh, maa ngi oo ñëpp ñu ñëw Serekunda euh, trading because ñun daal suñ base suñ bagage yi it's affordable yomba na ñëpp mën nañ ko afford so maa ngi oo ñëpp ñu ñëw Serekunda dina fi seen ay bagage seen building materials yi and stuff yëpp am nañ ko fii nii so maa ngi oo ñëpp ñu ñëw fii thank you Thank you so much for watching Sahel Network TV. Don't forget to subscribe, notification button, and then your thumbs up. Leave your comments. Bye bye. Aisha, you rek like Bye bye.